mbokk yi ñuy topp ci alhamdulilah TV ñu ngi leen nuyu baax di leen ziara waaye di jiital ñuy nuyoo bi ak ziar bi di ñaanal mboolem umma islam bi rawatina xalif zéro yooyu yi ngànk lislaam suñu borom gën leen fi bàyyil ñu tuddee sëñ Muntaxa Basiru tudd sëriñ Mbay Si Mansoor tudd Laayeen cene ba ñëpp danu mat waaye nag ñu ngi am kontante saa su ne ci janoo bi ngeen janoo ñun ci seen émission bii di tudd pencum xam-xam tey nag ñu am suñ gan macha allah di borom xam muy sëñ Mbay Mbàkke ñang ñu fase yéene séq ak moom waxtaan bi duñ def dara lu du jox ko xanaa bañ a guddal ci mu nuyook mbokki respectateur yi ñu seetaan sëriñ Mbay kon nga nuyook ñi ñu seetaan ci Alhamdulilah TV auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi arrahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina wa maulana muhammadin وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم تسليما بارك بروم توبا بوكي جوليدي بوكي شاربي ين بوكي توبو سينشيت الحمد لله تي في نوغي دوخ السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كنا بنو جيتالي سي نوي اك الخليفه شيخ محمد المنتقى دوكو نيانال يالا سون بروم ياغال كو فيتا ديفال كو اك وير با موت لي مبولم يينم اك ليغييم سي الاسلام noo ngi nuyu bu baax euh, sunu xarit sunu wëllëre Serigne Thioune mi nga xamante ne ci jataay bi ci moom la ko yàlla jaarale euh, di nuyu suñ mbokki caméraman yi daa mbégte bu baax nag Serigne ñëwaat jëw ci jataay bi nga xam ne moom lañ baaxoo ànd ak yow yenn saa yi incha allah. Serigne Mbaye Mbacke jërëjëf ci nuyoo bu am solo boobu macha allah ci njàppandal gi tamit ndax ku ne xam na ni. boobu ba léegi toogoo yaa ngi woon ci tournée ak jéego yi nga xamante ne saa su ne yaa ngi lépp de ngir liggéeyal sëriñ bi ak toolu sëriñ bi nga xamante ne yaa ngi bay tey nag sëñ mbay pencum xam-xam saa su ne rek nii lañ koy baaxoo ñu ñuy topp ñun li leen di bëgg di indil mooy xam waaye bëgguñu di leen indil loo xamante ni duñ ci gis xam ndax sëñ mbay jamono daa mel ni lii nduru xam-xam ak lii neen dafa bari te wuute loolu te mel ni ñi xam sax ràññeekuñu ndax alxuraan bu ne hal yastawi alladina ya'lamuna walladina laa ya'lamuna am na fu mu teg borom xam-xam. kon tey péncum xam-xam ak sunu Maodo bu am solo bi lañ bëgg a waxtaanee muy Serigne Touba ci biir góor yàlla yi. loolu daal lañ bëgg a waxtaanee sëñ mbay xam naa pour ñu dugg ci jotaay bi ngir mën a njëkkante waxtu yi. ana sëñ Mbaye buñ doon laaj. sëñ tubaa ci tënk ci biir nitu yàlla yi. ban dimension la ci am. Mm. ci liggéey waaye tamit ban dimension la Sëñ Tuubaa am ci nekkeen en tant que yàlla waaw kay jërëjëf sëriñ loolu de ab tom buy naqaree waxtaane la ci ak wet waaye ab tom buy neex a waxtaane la ci ak wet ndax sëriñ Tuubaa daal nekk ko xam ne di tubaab di wax particularité moom la doon ci biir gaay yàlla yi di la arab di wax naadiratu zamaan moom sax de su ko woowee naadiratu zamaan ndax naadiratu zamaan léeg-léeg mu am day raar rek. waaye sëñ bi nag moom. moom moom moom moom jenn jëmm joo xam ne lu mel ni moom amut. Mhm. te loolu sëñ Abdou Rahman mii fi daarul Khoudous e, fi daarul Moti moom sëñ Abdul Khoudous ba mu koy way dana ko lawlahu kaana suudu kal maadumi bu doon toon sëñ Tuubaa nit ku ñuul day am ba pare mel ni amut. nga xam ne maanaam moo yëkkati der bu ñuul ndax nan bàyyi xel ne Hitler ne woon na nit ñu ñuul ñi dañ leen fee war a jëlee parce que amuñu xam-xam amuñu alal sëriñ Touba nag ci biir gaay yàlla yi ndax junj lu bari ci ak njëlbéenam moom Serigne Touba xam nga léeg-léeg nit dina ne bëreet tàmbali di def ay signes di signaler fa mu jëm Serigne Touba nag lu bari ca Masaalikul Jinaan la teel di di di junj nit ñi boppam te xam nga boobu at yi bareegul ci zahir mm. taxawalagul yoon weeg yooyu. waaye ma ngay teel di junju ci nin xeebeen nit ku ñuul jàpp ne warta mën a am place ci biir gaay yàlla yi gis nga fala tanaaza xiina nazmi tasdari nassa xadiisa ummati kalmatari boo bëggee fàtte fàttelu wala ngay xeeb saa woy wi bul fàtte yaxalu addis ba rasulaay daa waxoon ne ummati kalmatar laa yudra a awaluhu xayrun am axiruhu mhm. sama xeetu dañoo mel ne ab taw kenn xamul ñu njëkk ñaa gën kenn xamul ñu mujj ñaa gën moo tax nag sëñ bi nag nag kon nag bul ne jël ngëneele yàlla ne ña fi jiitoon rek yóbbu nañ ko mm, waaw ñu mujj ñëw duñu am dara waaw cër yi daal jël ko rek jox ko ñëw jox ko ñooñu sëñ Tuubaa na boo ko defee réer wala tuqasit fadla rabbin qad ala bi si taqaddumin faqat fatajala mm. bi mu waxee loolu ba pare nag daal di présenté boppam xanaa xamoo ne léeg-léeg as cam mujj ñëw ñu wommatal ko jox ko loo xam ne fàddu na ñi fi jiitu woon te umb na leen sax jafe na leen jour mm-hmm. ba ma uri فتن مؤقرة نعم. ما غاب عمن قبله عصرة نعم. بن بريزانتي بابا بابا نك دال دي واتي باتي سوني كاباسيتي مثال نوكو تي اب تاو بي نيو لوي جيكا نيو دو مسي موي ويتي ويتيالي ني نكو مو نواي غانتاخ غانك لا كوي نيورال با تخ نيو وخم نويت مانكا وامي و توامي واي موجو التل قد يبدو امام الوابل والفضل للوابل لا للطل كون موم تيلنا ديف بريزانتاسيون تيلا جوخني تيلا جوخني ني موم امنا لو سوني بروم دخن موم ndax gaay yàlla yi xam nga gis nga ku mel ni Cheikh Abdou Khadir Jeylaani euh, nga xam ne ci gaay yàlla yi la bokkoon daana jékki-jékki ne mulki ak min mulki lay waaw ngir ngir wax dayoo ak cër bi ko yàlla waaw waaw ngir xam nga ataxaddusu bi ni'matillahi shukrun shukrun waxtaani xéwal ak yàlla gi cant la waaye léeg-léegi góor yàlla toll foo xam ne day fanaw day jeex ci boroomam jeex ci yàlla waaw léeg-léeg mu wax wax joo xam ne xanaa ñu topp xaqiiqa ji mais bu ñu toppee sariya ji jeex si mën na koo dal hmm, Cheikh Abdou Khadir Jeylaani bu waxaa lii eh, xista bi Sëñ Tuubaa ko daan li mag ñi ne leen ndax xam ngeen lu tax mu daa wax wax ju ji daana yu jëkki-jëkki ne wa amri bi amrillaahi in xultu kun takun wa kullun bi amrillaahi faxkum bi qudrati Cheikh Abdou Khadir Jeylaani daan wax ne maag yàllaa yem bu yàlla nee naa mu am bu nee du am du am Abdou Khadir na am mu am du lu yàlla attiwu ci daraja Abdou Khadir Jeylaani du dog Sëñ Tuubaa ne mag ñi nag xam ngeen lu tax mu daa wax waaja man ñu ne ko mbàkke ba nu ci dimbali woon nu jël mu ne leen yàlla du ko yóbbu ca déegam ba daan ba mu demee ca dégg ba jiili nag ndey ja daa baax nangoo topp baayam baay ba baax nangoo jaamu yàlla jiili juddu ci seen diggante mel ni mel daan leen xanaa xamu leen ni jiili maqaamam àgg na ci ab taalibe mas naa faatu bis ñu ñëw wax ko ko mu ne leen malakul mawti sañ te jël waxoog sama ab taalibe te taggu ñu ne ko am na de sëñ Tuubaa ne waaye ba mu ba ci digg bëccëg mu xam ne loolu am na daa dab malayka ma dëpp béjjën ba keroog ku faatu woon dalaa delluwaat sa ruux ci bis bi. ndax nit dina ëpp doole. malayka waaw léegi nag sëñ Tuubaa tàmbali di leen jàng ci Abdul Xaadir Jilaani ni leen ndax xam ngeen lu waral jëf ji ak wax ju rëy ji ñu ne ko mu ne leen yàllaa ko ne jàkk yóbbu ko ca déggam ba ba mu demee leer ga gandu ko mu daanoo njaaxaanaay di wax wax ju rëy ji maanaam nga xam ne jot naan waaye leer gee ko gand mm, mel ni tey jii ñu tijjeen fii lu lu tàng ñu ubbi ko rek saxaar si dugg la mm-hmm. nga da nga dali fe sëñ ne yalla ko yobbu ci deg ba bam ne ko jakk yobbu ko ci deg ba leer gaa ko gand mu daanu di wax wax juré jooju daane mo waral wax ci ndax Cheikh Abdou Khadre Jeylani bo dala talibem bi nana ko yow li nga wax nak mu ne ko lumay wax mu ne ko da nga na moy gëna a yalla ngor mu jël jaas jox ko nako ko xete dagal bat bi lolou kenn du ko wax waye bu jël bi ñewé bu tal bi jëlé jaas ji bu xacc am ndox lay def sëñ Tuubaa moom Cheikh Abdou Khadre Jeylani waaye waye Tuubaa nag nak neena Abdou khadir Jeylani déeg boobee ko yàlla yóbbu yàlla yóbbu na fa. mu ko nettalee mag ñi ba noppi dañu leen déeg boobee de yàlla yóbbu na ci seen waay ji. moom sëñ Tuubaa moom sëñ Tuubaa daan ne man de ba ma demee ca déeg ba dama jël sama wenn sàll wi dëpp ci asamaan si jël wenn sàll wi dëpp ci suuf sëggal saa bopp ca déeg ba naanal saa bopp bàyyil saa bopp te ak leer gandu ba chaqaanii bi kasil qawmi man nawwara alxija bi kaw nii qadiman lillazi qablu faraja kuushuka tashqinii bi haja busharatin wali qutta faydan axjala albahara walfulka moo tax sëñ bay jaxat na ko dangaa dox fa mbër yépp dox nag te dox fu kenn mës la dox am nga jaajëf ju mat léegi nga gis sa diggamat ci Abdou Khadir Jeylaani am na ku yéeme ko ndax Uwaysil Xarini yaman la dëkkoon ci gaay yàlla yi la bokkoon moo yonente bi bokk nañ jenn jamono gisante wuñ ci zahir nag waaye yonente bi daana toog Madina ba yàgg naan xeetu yàlla ngi may xëy njaman gi boobu ci jàmbaar jooju muy Uwaysil Xarini moo jegeñ yàlla ba xeetuk yonente bi xeetuk yàlla di xeeñ yonente bi ci moom nga xam ne ni mu yéemee kenn xamul lu mel am na benn naar bu ñëw ci sëñ bi ne ko noo demee gaay yàlla yi sëñ Tuubaa ne ko koo ci xam ñu tàmbale xam naa Cheikh Abdul Ahad xam naa Abu Yazid al-Bustani di lim wàllu yi sëñ Tuubaa di ree bi mu limee ba ko ñi ngay lim ñëpp xam nga ko ci gën a doyaar mu ne ko déedéet mu ne ko ooy sil xere ni ndax junj yéen bi waxoon yàlla ci moom waaw sëñ Tuubaa ne ne ko moo ci gën a doyaar kooku ne teg sëñ Tuubaa ne ko waaye de walaw nii la rafaxani walaw adrakani la rafaxani bon bokkoon jenn jamono maay doon sëriñam day jébbalu ci man kon sëñ tubaay kan waaw daan na ko walaw kuntu kaadiban la afdaxanillahu fil xiin lii ma wax su amutoon yàlla gàcceel ma léegi du bàyyi ba na yoomal xiyam ooy si buñ bokkoon jamono di jébbalu man ahmadu may doon sëriñ kon ooy su ma yonent bi doon junj waaw ci cërub yàlla te gisan ko bàyyi wax saxaaba yi naan leen eh, moom mi xetug yàlla xeetug yàlla mu may xeñ ci moom suñ tubaa nee bu ooy su ñëwoon da koy topp da koy topp man mbokkoon jamono mu topp ko te teewul topp na ko ci baatin ndax sëñ tubaa nee bi ma taalifee wasilatu rubuux nee na ooy si dana jëpp fi samay tànk yow yàlla maqaama moo ma a may tey fabal daraja joo ma masan a may jox jala joxaat naa la ko nga ne loo ma masan ràng delloo naa la ko suñu borom ne ko loo bëgg mu ne ko nga delloo ma àdduna ma bokk ci surga Cheikh Ahmadou Bamba yi di ko liggéeyal mais hmm. keroog ma teel fi aussi la la booy si wax li boromam kon sëñ Mbay Mbàkke loolu doy na waar hmm. kon kan muy sëñ Tuubaa kon ci dayo ku kenn xamut ndax bu fekkee biir góor yàlla yi taxawaay boobu la ci am waaw kon sëñ Tuubaa mooy kan kan ak mom lu mu affirmé. ci ci dayo ci liggéey bu mu liggéey. ak fim jele l'islam ak fim fekkon diine ci ci gor yàlla yep liggéey mu ñëw liggéey seen kaw. ban dayo la taxawé wa xam nga sëñ Serigne sëñ Moussa Ka dana ko maqamam Serigne Touba amul khawsu buñ ko may. wa yakhluqu ma la ta'lamuna ay Serigne Touba. amna luñu yag na jàng ci alquran ken xamute ni am pirem bi sëñ Touba ñewé lañ xam ne la yàlla doon junj. ni nim mel ci digënté ma gaay yàlla yi. gis nga am na kun daan wax Yusuf ibnu Ismaayil an-Nabahani Liban la dëkk boo demee mooy mooy daj dëpp ak waa Liban mooy seen yaakaar Yusuf ibnu Ismaayil an-Nabahani moo taalif jaamiu karaamaatil awliyaa benn bu siiw bi bu siiw bi al anwarul moo ko taalif mm. Liban la nekkoon moom daa mën na tagg Rasulullah ba bu masaa sëpp xalimam ci daa ji yonente bi bàyyi ko fa mu nekk jox ko loxo moom man àggat na foofu moom Yusuf ibnu Ismaayil an-Nabahani am bis loolu yéem ko yonent bi ñëw mu koy laaj waaw ndax ni ma la mën a tagge am na ku la mën a tagge noonu ak li ma la tagg ndax am na ku la tagg lu ne toll yonent bee ne ko ku ni wax Ahmadou Bamba dëkk Sénégal jotoo asakaam tolloo ko ci waq hmm. bu dee tagg ma rek mu laaj ci sëñ bi ñu ne ko ma ngi ci géej gi mu yónnee addiyam sëñ Tuubaa dem ba jóge ci géej gi dem daaru mën naan jóge daaru mën naan dem gànnaar jóge fa dem jolof jóge fa ñëw njaareem nekk njaareem Yusuf ibnu Ismail Andabaani nekk ca Liban am daa iqul maal sëñ Mbay duñ la dog waaye dafa mel ni biir mbind ci téere bokk mm-hmm. li ñuy wax fii Sénégal mm-hmm. ñu taarix kat yi xam na li ma wax nii ñu gëstu taarix mm-hmm. alaaji Omar lañ gis ni bu fekkee ëppali mbind ginnaaw sëñ bi moom la te 200 téere la bind li sëñ bi def ci yonent bi ana ban dayoo la sëñ bi am kon ci tagg gi waa xam nga euh, sëriñ sëñ Tuubaa bu dee tagg rasulullah sallallahu alayhi wasallam kenn séenu ko ci ndax fi mu ne nii bu nekkente ne ji ñi nga tudd léegi muy Kaab Xasaan Busayri ñooñ ñëpp sëñ Tuubaa li nee na wa fi matxihi jaawastu kaaban wa xasaana bu dee tagg rasulullah sëñ Tuubaa nee na maa ci tiim kaab maa ci tiim xasaan boo xoolee ñoo ñëpp ay woykati rasulullah sallallahu alayhi wa la yoo xamante ne ji ay jàmbaar lan waaye sëñ nag li mu li mu am ci yonent bi sallallahu alayhi wa ci tàgg ko moom la kenn mës a am ndax bi mu dikkee lu mu wax ci midaadi wa aqlaami daa mel ni yonente bi ñàkk bind gi ko yàlla tere woon bind wala taxuttuhu bi yaminika sëñ Tuubaa bi mu dikkee da koo def bor mm. bor boo xam ne moo ko war loo fay yamini alayha daynu xattin yurisu nan mm. safian mm. kafaani duuna durin zawil baxi dem ci muqaddamat ne yamini alayha daynu xattin xawaari dan bi xidmati xilli zil madinati zahid yi nga xam ne li mu bindal li mu liggéey rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ci bind kenn mës sa gis luy bind lu mel lu mel ne Cheikh Ahmadou Bamba binde ndax wax nga ko léegi koo fi mës a dégg ñu ne la way na rasulullaay wala tax am na fa mbind am mën nañoo ko di téere yi waaw mën nañoo xëy jàng ko waaw mu jeex gis nga sëñ Muntaxa mais bari na xasida yu mu xamul mhm. yow man ngaa xam xasida gu sëñ Muntaxa xamul mhm. mën ngaa am xasida gu sëñ Muntaxa amul moo tax kaangam alxuraan mën nga ko dégg waaye du dégg kaangum xasida kaangum xasida waaw sëñ Tuubaa li mu liggéey rasulullaay kenn mënu koo peek abiyaat yee tam léeg-léeg nga dégg bayit boo xam ne euh, boo nekkee ci sëñ Tuubaa fi mu ne nun ñi nga xam ne danay nab na bi ci sëñ bi ñun la sëñ bi gën a jommal ndax bayit wooy liir ba ko yéem bu ko gën a rëy taxaw sa kanam waaw ko waaw nga xamante ne ji loolu day feeñ ci biir liggéey bi mu liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa muy kaam muy xasaan ñëpp muy anas mi nga xam ne moo jëkk nekk xaadimu rasul ba mu ne bëri da koo teg soog wañaal maqaam yi maqaamal murtada anas yi diggante bu gàtt ñëpp dañu roppi waaw surtout xadiimal Mustafa mis la anas mel naa ni anas diggante bu gàtt mu ne jaawastu anas tëb naa anas romb naa ko jàll naa sëñ Tuubaa ku mas a tegtaloo ci gaa yi yàlla koo mas a dégg mu ne ko sama sëriñ xamal ne da nga koo jiitu mu tegtaloo ci yow mm. jam la ay faaram bu tolloog yow fel na sab signal jàll waaw te bu la rombee du dugg seen waaw ndax mboolem sax ñim jaar ñëpp. yenn saa yi nga dégg mu ni euh, rajo yi ànd yooyu yëpp. dafa mel ni ay junj la. li mu bëgg a wax ni. Mhm. jaar naa ci yëf yi yëpp ci ñoom ñëpp li ñu yor baax na waaye nag. man maa yor li gën a baax. dëgg la xam masaayixi sayyiduna al-Jilaani. Mhm. wa Zaadali maahu Tijaani. a'immati fil fiqhi maalikul ali wa saafi'i wal xanafi al xanbali xam nga bi mu ne bërit tegtaloo na si Abdou Khadir Jaylaani. Cheikh Ahmad Tidiane ak ñooñu def leen ay sëriñ waaye sëriñ lan sëriñ boo xam ne dalaa jiitu ci mbir nga jaar ci ay tànkam mais pas sëriñ ngeen xam nu muy wasila loolu arab wasila la ko wax xaside yi boo ko yëree ba mu daj ku rasulullah sëñ Tuubaa mosulaa wax baatu wasila baana li kulli man lu maqulu anna wasilati wa rasul si Ahmad Tidiane si Abdou Khadir Jeylaani Abul doo indi génn xasida goo xam ne sëñ Tuubaa danaa wasilati ko dina ko woowee sayxi nag ndax man àllamaka xarfan waahid foo mawlaa ku la jàngal wenn arab sa kilifa te ñoom ci ñoom la tegtaloo jëm ci yàlla bu dee Malik Shafi Hanifa Hanbal ci seenam ngir la soobu léegi nag mooy li ma la wax dangaa ngaa dox fa mbër yëpp dox nag te dox fu kenn mësul dox am nga jaajëf ju mat léegi nag euh, diine daa am nu muy doxee boo ñëwee dafa am loo xam ne walan tajida li sunnati lay tabdila walan tajida li sunnati lay taxwila boo ñëwee moom il faut da ngay nekk saalig rek soobu ci yoon wi sàmmonte ak yi nga xamante ne ji moom nga war a sàmmonteel waaye nag am na foo xam ne boo fa àggee moom nee na dem naa ba àgg foo xam ne seen làkk ba leen def ñoom gaay yàlla yépp ba ma ñëwee ba yëglu ñu ne ma man bil bee bi ku ne ci bunt bi nee na ñu ne ma abdu ma ne abdu leey ñu ne ma massa turi loo bëgg ne may leen addu xuul dugg sëñ Tuubaa nee na bunt boo bee baa ci duggee fekk naa fa wàllu yooyu wolof fekk fa wàllu yooyu làkkat fekk fa wàllu yooyu arab wàllu yooyu arab yi ne ma man haza yooyu wolof yi ne ma kooku kumu yooyu làkkat yi ne ma koronkowele nee may bëgg wax yàlla ne ma kaay ma yóbbu la foofu duutuñu la gis te loon am yaa leen koy jox Cheikh Ibrahima Diop ne ko antal lazi sirta للأكوان واسطة تنتل جميع ورب العرش يعطيك فخنا بدو دقنت يلا جام يلا يلا جهت يلا كو جخ لب جام ورتي أم مجوجت يلا يا كو جخ بنان بيت بام يخ بام نفقت بحجيرة الأولياء فإذا بكل ولي دخل من باب بام كوي بخنا بام دم بيت بنتو لكبي جسوا ليو يلا يفلن يلا دف نوم يب كن دسوب كان نكون ما جسبرت من جار أجت يلا نحن شاب دخل رجال أنا ما نكون شيء نكتي بندو بترخل لجار أجت يلا sëñ bi neena na defuma lu may wër làkk bay liggéeyal rasulullaay ba yàgg rasulullaay ni sëq ab loxoom ci biti làkk bi ni ma sëq tàbbal ma ci seen biir nee na gars yi ne man hasa kii ku mu doon nee na wa yaxluqu maa laa ta'lamuun la leen tontu keroog yàlla bind na lu leen xamul nee awma lu may fa futiha lii baabun lam yuftax li ahadin qabli ñu ne kaccit ubbil ma buntu boo xam ne mësee su ko ubbil kenn ku ma jiitu wala yuftaxu li ahadin baadi dee su ko ubbil kenn ku ñëw sama gannaaw warul dakamaakaana موسم المولم نيزان نيزان نيزان شيبر جوبان وهو إمام الأولياء وهو رئيس الأصفياء ووارث للأنبياء والأتقياء الخدماء كوكو موشي عمدو نيزان سرين باي كوكو موي سن جوبا كون موي انكوني بي ndax wa yaxluqu maa laa ta'lamuun mooy sàkk naa ba sàkk lu ngeen xamul mhm. kon suñ tubaa kenn mënu ko xam ndax ñun waaye ndare ak mboolem bànqaas ñuy teg ngir xam nit mhm. ak li li li ñuy jàngale ci xam doomu aadama dañuy mhm. tuddee portrait physique et moral suñ tubaa amu ko ndax suñ tubaa nee na ki gën a réer mooy ki dem ci kaggu yi xamee ngir xam lu ko fa ngir di ko fa gëstu ndax moom maanaam euh, maanaam dafaatir mm-hmm. wàllu téere yi nga xam moom la ñu xamee mm-hmm. suñu borom dafa jël mbiram làq ko ci lu du téere kon sëñ bi inconnu la sëñ Mbay mm-hmm. eh, lu am solo nga ñu indil macha allah waaye comme ni nga waxee rek Sëñ Ibrahima Diouf Masar yi waxoon na ko famaa lil xadim bi barrun min ahdi amin wala lil yawma fii kulli kiraay keroog ba yàlla sàkkee aadama muy suñu maam ñun ñëpp ba keroog doomu adama ji mujj ak mboolem luy mbindeef yàlla du indiwaat exemplaire ba mel suñ Sëñ Tuubaa kon du du du du caagee ni ñun ñoo bëgg supériorité ñoo ko yëkkati du caagee ni da danoo far wala danoo bokke waaye suñ Tuubaa moom yàlla moo ko def ni mel kon am na solo xam naa gudd na gudd waaye li durti nag bi saa su ne duñ ko mën a buuxandoo mu dugg ci cin li kon boobaa jafe-jafe guñ ko yëngalee day am xanaa dañ lay joxe rek suñ mbay macha allah nga tàggatoog ñi ñuy seetaan ci minute bu ko defee ñu yëkkati jotaay bi. waaw hmm. kay jërëjëf Serigne xanaa am mbégte bu baax euh, di la sant bu baax a baax euh, ci sa disponibilité bi nga xamante ne ji am nga ko yaa équipe bu alhamdulilahi TV yëpp ban mën a seq jotaay bi nga xam ne mooy pencum xam-xam di ñaan suñu borom defal ñu ci ndam defal ñu ak dégg ak topp noo ngi sant bu baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. kon jër ngeen jëf mbokk yi ñuy topp ci àdduna ci Sénégal waaye tamit à travers alhamdulilahi TV. lii moo doonoon seen émission bu mag bi nga xamante ni saa su ne day jéggi xam-xam waaye saa su ne day jàpp ci xam-xam ngir xamal askan wi muy pencum xam-xam tey ñu àndoon ceeg suñu xarit suñu wëllëre macha allah waaye ci dal gi xam-xam bi teggin gi waaye disponibilité sañ bay ndax disponibilité rek ku la xam-xam ne ci disponible mm. waaw xat-xat du woo defoo dara te loolu lépp mënoon na la cee fekk waaw kon ñu ngi lay sant bu baax di ñaan ñi ñuy seetaan suñ caméraman suñ directeur programme suñ Ibrahima Faye suñ Babacar Diop suñ Moustapha Kane duñ ko fàtte bi Touba TV soxna Yacine borom soññee ak suñ Modou Samb ñu ngi leen nuyu bu baax di nuyu bu baax tamit mboolem ñi nga xamante ni ñu ngi topp jotaay bi kilifa yi nga xamante ni yoonu murit ak feneen furut yoonu murit di jaar bu baax nag sama waa kër waa xadara majal mi waa Mbacke Palen ñu ngi leen jaar bu baax suñu Aliou Serigne taala ñëpp rek ñu ngi leen nuyu baax kon fii la ñuy yàmale incha allah ci seen digg daje ci seen yeneen jotaay jaalallahu min alladina yasamil xawla fa yatabi axsanahu Alhamdoulilah TV, la chaîne des valeurs et des vertus.